kii lu muy def moom ay lii rek lay def ay manière xam lan la moom ay manière rek lay def mais dara dalu ko mais na gëm yàlla wujje du daaxa boo ko wër kese la salaamaaleykum na ngeen def yéen ci jàmm ça va bien alhamdulilah lan la moom ku mu doon yow ku nekk lu ko daldi di loolu noonu la lay dale lu la bett lu nekk mën la waaw waaye lan la moom fees na dell palaasam fees na dell palaasam Marème nag sama turandoo moomu nag dafa ëppal xam nga ñaareel moom boo leen mayee tuuti rek dañuy yaakaar ñu jël lépp rek noonu dong la fa demee ay série bi moom neex na trop trop trop trop man duma ko tardé damay seetaan ci télé bi ba mu jeex ma jëlaat sama portable di seetaan keroog dama dugg sama connexion 2000 francs pour weer. mais dama seetaan ci guddi gi pare ma wëlbatiwaat di ko seetaan ak di leen déglu ma gis li numéro bi na mën a il faut ma woote ci ni ngeen di def dara ñaaw ci lépp rafet Sénégal moo mel noonu rek da ngay xool bu seddee ñu ne sedd na bu tàngee ñu ne tàng na li ngeen def neex na trop maa leen di ñaanal ngeen yaa àggale ak seen sago jërëjëf fekkee na am na lu ma ci waa kàddu ma ci wax nag mu xaw a kii nag xamal na rek amul ku dul juum jërë ngeen jëf waaw siyaar naa leen siyaar naa leen bu baax maa leen di bëggee nag seen série bi neex na trop am na solo waaw waaye Marème moom mere naa ko trop mënu woon a fekkee ji ak lu mu métti métti rek dafa waroon toog xaaseex séeréer boobu la def moom mi ngi ko doon jox moom na toog xaar rek mais bu dem dem bi woon dem moom mere naa ko torop mais seen série bi neex na lool ma koy suivre moom neex na torop macha allah waaye Sénégal nag moom moo mel noonu bu ñii nii ñii ni nii mais doon nañ fi seetaan ay film yu ko gën a garaaw yu tooga suñuy doom du ko seetaan mais lii man gisuma ci ab lu ci ne de ah man boog sama côté gisuma ci lu garaaw ci nekk lépp luy yeete laa fi gis ak luy delloo si nit ñi waaw laal la tamit maa ngi koy wax mu muñ waaw lii lépp day jeex ku gënoon metti le fop te dafa jeex day jeex muñ na muñ que yéen a ngi ci jàmm na def ba dara jotu leen ah man de lu may yokk ci ci série maîtresse vraiment série bi neex na mais daal euh, lu ko yàq daal waxin yi ñoo ko yàq parce que nit ñi li ñuy wax dëgg la Marème nu muy waxee c'est pas joli du tout parce que film bi dafa film bi ay xale dañuy toog di ko seetaan ay mag suñuy yaay suñu tontoo ñun ñëpp ñun ñëpp ñuy toggandoo di ko seetaan te aussi c'est honte que ñun ñuy toog ak suñuy waajur série bi ñu ci wax yenn yi c'est pas joli di tout wallaay même man mi wax naa ko c'est pas joli parce que ñun dañuy toog di ko seetaan suñu yaay yi suñu ñun ñëpp toogandoo di ko seetaan ñu ciy wax yenn yi vraiment film bi neex na mais daal seen waxin daal moom c'est pas joli rafetul man daal loolu rek laa ci doon yokk ñu en tout cas ñu xool seen waxin bu baax a baax ñu xool seen waxin film bi neex na mais seen waxin moo ko yàq surtout ma Marème Marème nu muy waxee moom. vraiment man mi xale laa mais tamit euh, xam nga c'est pas joli du tout rafetul rafetul vraiment nañu xoolaat bu baax a baax seen waxin. salaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié maa ngi leen di nuyu di di ziare ñëpp di rafetlu bu baax seen série bi neex na trop macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax wax dëgg yàlla neex na trop daal macha allah. di kontaan yi ñëpp nag Marème nag euh, laa bëggoon a waxa rek ndax lu def noonu deful dara lu mu def yoon la mu dem jëlee lu mu moom tamit parce que moom moo aye woon am na droit dem kër euh, dem kër laal la jëli jëli jëli jëli jëkkëram parce que ayam la kenn waru ko joxe tamit waa di wax nag sama mbokki jigéen yi tamit jigéen ñi tamit ñoo war a gën a yaatal seen moroomi jigéen yi góor ñi dëgg la dañuy def mais jigéen ñi tamit am nañ ci pas de responsabilité parce que ñoom tamit kenn rawu leen jigéen ñi ñoo war a yaatal seen boppi jigéen ñi ñu ñëw topp ci seen ginnaaw kër gi mën a neex waaye jigéen moom bu xatee rek affaire yi day mujjee compliqué daal metti te wujje du dara garaawul pour man war nañ ko mën a gérer ah, bokk góor ñi tamit waaye buñ bëggee góor ñi yam ci benn jabar rek tamit du sotti de <laughs> merci beaucoup bay nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag. bonsoir waa série maîtresse d'un homme marié kontaan naa bu baax a baax a baax ci série bi ah, di encourager aussi Marème di wax Cheikh Diagne moom it na assumer ay responsabilité am parce que vraiment takk jigéen doo ko jox ayam normal te avant nga doon daw ci ginnaaw gauche ak droite fexe ba topp ko mu bàyyi ñëpp topp la. xam nga nga dem ba takku ko bu ko kàll ak ni nga def ba takku ko ak sa aawo fi mu jaar ak moom war na tax nga respecté ko am foo ko teg mais kenn du Marème Thial man daal bëgg naa ko te dara xew bëgg naa ko te chaque fois dama koy publier sama sama sama sama statut yi dañuy ree rek dañ naan ma yow kii loo bokk ak moom ma ne ko duma ko bëgg parce que dafa ñeme li muy def après ambiance bi macha allah kontaan naa ci torop torop waaw di wax ngeen yokk góorgóorlu yàlla baax na ci kaw ci kanam. asalaamaaleykum ñu def yéen a ngi si jàmm baax a baax maa ngi leen siyaar yéen ñëpp waa damaa numéro bi waa yàgg naa déglu nag seeni commentaire yàgg naa déglu seeni commentaire waa maa loolu wax naan Marème daal mer doo nga tax daanaka mu def loolu na jigéen moom bu meree ba sës doo xam lu muy def. waaw man nag awalaade waaye mari kii nim doxalee du noonu ndax dangoo fekkoon seeni maam yi di wujje kon nit ñi dana war a wujj ndax jigéen moo ëpp góor ndax bu demee ba ji jigéen góor di yem si benn jigéen ñun fu jëm jigéen mooy tut kon góor ñi dana dana dem ñeeñi kar waaw moom daal Mariam daal ni mu doxalee neex na ma dafa mer ba sës rek mer ba moom moo mën a jëmi fu nekk moom manager mi fu nekk kanin moom mën na dugal lu nekk te doo xam la mu doon dafa sës eh, seex tamit ni mu doxalee wuri koo doxalee góor yor ñaari jabare noonu du jàng doxale noonu de moo tas këram de nu man def daal mooy tas këram nu man di wax tamit moo waa salaamaaleykum na ngeen def man la awa gumbala mbaa yeneen ci jàmm ah moom neex na torop waaye Lalla ni muy doxalee na man sama sañoon du ko doxalee noonu Mariam moom bëgg naa sëy bëgg naa sëy waaye Lalla dafa xaw fii fii bi sëy ak jëkkëram koy jox confiance ma sëkk moo gën di xalaat naan nekk naa kee nekk naa kee maanaam daal sama sañoon ñu ñoom bu neex waaw man damay wujje nag waaye nag sama ñu dund loolu bañ a dund maanaam damay maye patt non Cheikh Diagne moom mm, guerrier la quoi guerrier la parce que góor moom daa niru góor mais nag nu mu ko doxalee mooy loolu noonu quoi xam nga parce que jigéen tamit doo ko bëgg gëmloo ko sa bopp gëmloo ko sa bopp xam nga di koy gëmloo ne moom kese la bés boo ko takkee takkalee rek xam nga day andi beneen day andi beneen lii nii quoi beneen acte si biir loolu la rek parce que daa ko foogewutoon aaw bi foogewutoon ko ndaxte lu mu gëntu la. mais nag ñaareel bi tamit jonge na de waaw Marème moom daa jonge Marème sa jonge bi danga koy wàññi tuuti dégg nga. salaamaaleykum maa bu baax a baax nag sama soxla sama idée lay wax ndaxte ñaari nit suñu wujjee moom ñoom ñaar ñëpp yem sa ja mais nag Marème tamit wartoona dabi Cheikh Diagne si kër si kër si du yoon sama gis-gis mais tamit bu dekkee ne Marème moo aye seex tamit wata dem euh, reeri si kër aaw ba. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa série yëpp maa ngi nuyu naa leen yéen ñëpp mais man daal kontaan naa ci bu baax ndax ñu ngi jàngal sénégalais yi sénégalais yëpp kenn ku ci nekk ni fi nga war a jaar ak nga war a def ba même su fekkee da nga ànd ak sax nga xam nooy def ak nooy comporté ba li nga bëgg nga am ko. mais fi may wax tuuti na nag ci ñi nga xam ne ñooy organiser hmm, théâtre bi dama la bëgg ni leen pour man Marième Diallo li mu def boo ñëw foofu réaction bi sax mën nañ ko wax parce que tamit jigéen boo fi woo su ngay wujje il faut nga def réaction boobu mais moom ma doon man doon nañoo na ba si kër gi mu wax leen bon appétit rek loolu mu wax moom muy am ci rek génnaat daf may neex bëgguma mu xuloo fa bëgguma mu xeex fa parce que lu mu fi def day yàq tamit pour man yéen ñi bind bi xam nga yàlla may bu mag a tamit des fois dama ba ci kër gi rek mën na nekk réaction bu normal pour man moom mu nuyoo wax leen bon appétit ba ñeeku waat jug Cheikh bàyyi ko dem jug topp ko bu ñu xaw ma lan moo nekk ci suuf lu tax Seck réagir noonu xaw ma nu mu demee noonu mais pour man daal loolu laa gën a gis mu defa di xuloo wala mu ñàkkal boppam classe parce que bu defee loolu situation bi mariage bi day commencé teel a am problème te pour man teel na xaw nag ni ko gisee yéen. salaamaaleykum wa rahmatulah waalo Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di leen wax ne seen émission bi moom seen kii bi déglu naa ko am na solo bu baax a baax maîtresse bi moom dafa neex macha allah maîtresse moom dafa neex trop sax wax dëgg neex yàlla man moom mu koy suivre bu baax a baax a baax mais neex na torop ak man. waaw man nag laal la moom dama koy sikk moom laal la moom yenn yi moom dara parce que wujji jaru ko yenn yi daal wujji jaru ko ci àdduna moom dafa war a toog rek mel nu mu meloon comme enfant mu mu mu géré géré jëkkëram bàyyi bu marem ayee mu jox ko ayam ñu nekk ci jàmm ak euh, rakki tamit li mu koy wax moom it bu mu topp yaayam daal ndax yaayam moom da ko war a bàyyi ki nga xam ne moom mooy Moustapha moo gën mu di ko mu di ko booleek koo xamante ne sii daal moom du moom sax xam nga la waxoon na ko ko bu njëkk ma nee na ko yaay kooku pour yow la waaye du pour man mais ba léegi daal yaay ji bàyyiwul ba maywul daal yaay ji dina ko poussé ci paa bi te loolu daal ma mais kontaan naa ci yéen bu baax ma ngi jiyaat bu baax a baax am na solo nag.